daf leen di seega bëre moom bëre bëre ba daan ko jëf bëre jege si baaba moo fi yóbboon maam janta top cinq waaye nag ay di ngay dajee ku daan la doon daan caat booy bambara doy na sëkk palmarès ñoo ngi lay siyaare ñu la bëgg ginnaaw moom sant yàlla ñu ngi si yëpp sant sama ñaari waajur yàlla xulóom la di nag ñi fi nekk mm. may yéegal bi mm. damay baaw maa ngi tuub di jéegal sama oto nag moo paanam maa ngi jéegal waa CNT ak promoteur bi mi Gaston Production ak Makan di wax maa ngi jéegalu bu baax mais carrément bi fii la mais bis ba la mm. maa fay njëkk si kàttanu yàlla lépp lu fay neex maa koy def lépp lu nga xam ne dina taaral stade bi Baba Jaxal moo koy def sànq bu may dugg si arène nationale bi daa dar gémmiñam ne lan waa jaangi bu may ñëw arène nationale saa su ma gisee day tiit <laughs> ndax ba may ñëw sànq Baba ñëw na sànq bu xam ne borom ñëw na mm-hmm. waaw di ji wax nag sama adversaire grand frère la te grand frère cër dañ koy cërale mais mu ranta mm. damay damay damay laaj Baba Jaxal choix bi la moo tax lan moo tax mu doon naaw Sogas ñu gis beneen adversaire jëloon la mu caatu ngéwél ba léegi ñu ne combat boobu amatul delloo na avance lan la tax lu tax sa choix doon naaw waaw kooku muy caatu ngéwél dañ koy ñaanal jàmm ak nee yaayam moo tawat di ko ñaan yàlla na suñu borom suuf boobu. amiin amiin. ndax làmb la mais moom yàgg naa daw avance bi jox na ko jox jox nañ ko lu ma cinq fois mu koy daw ma xëy na yàlla daa dogalul ñu war a bëre. comme que tey yàlla dogal na Baba Diakhal Naar Sogas taxaw na waaw dañuy def li nga xam ne moo ñu war ak lu ñuy may ndam ñu nekk si mais lu ma leen wax mooy leen. waaw Makan. mu ngi lay dégg. yow laay waxal si kàttanu yàlla incha allah bis bi. Hmm. sama prime ko. ah waaw ndax maay taaral làmb ji. di nuyu nag champion yu mag yi ak samay papa sama papa ak Assis mu nga xam ne mooy sama papa mooy sama lépp dama ko mës a faate di nuyu nag. fu ma dëkk muy sam-sam 1 2 3 di félicité sama grand frère ñàkk jëriñu di ko ñaanal yàlla dafa yàpp mbooloo ko nga xam ne am na combat muy jaamu gën si kambaaw sam-sam yal na la yàlla may ndam mm. di nuyu nag sama sëriñ maam Thierno Baabulaahi Baabul Jannati yàlla na fi yàgg te wér di nuyu nag képp ku nga xam ne da ngay jàppale Baabu Jaxal muy BBC sama xarit may la doole may la xaalis mm. sama waay la sama lépp la di nuyu Assane Fall borom Paris yéen promoteurs yi ak ñi nga xam ne journalistes yi dee leen maanaam di gestu du xool anciens goulaar yi mhm. ndax ñoom tey bu làmb demee ba toll fii à cause de ñoom. am na champion yi nga xam ne tamit ay mbër lañ. Mhm. dañoo bokk si làmb nekkul ñun kese ñoo fi ne ku mel ni Bacchelaas. champion la. Mhm. kooku danaan taaral stade bi. ku mel ni Tigre bu Lamsaar kooku bu dugg see daan ram raam fëgg dënam lool rek rafetal na làmb promoteur dama leen di ñaan te yàlla tax ngir yàlla da leen gëstu champion yooyu noonu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen di leen wax loolu nag di niw nag képp ku nga xam ne ñu ngi bëggee Baba Diakhal mm. maa leen di siyaar rendez-vous la katoo incha allah lépp lu fay neex maa koy neexal